jërëjëf di amaat mbégte ak contentement bu baax a baax a baax saa su ne rek di jàkkaarloo ak yéen fii ci Sénégal Buzz 221 lu ñu koy defee ak yéen saa su ne di dalal ay ndaanaan waaye ñu toog ak suñu frère boo xamante ne dootuñu ko présenté Sénégalais ci taxawaay bi nga xamante ne rek yàgg na ko taxawee ci réew mi le grand champion Papa saw ma seet si ko tey fii ci écurie bi fas yéene séq ak moom li nga xamante ni moo di waxtaan xam naa laataa ñu gën a suñu ay kaddu dañu koy nuyu rek bàyyi mu daal di nuyu internet yi papa ñu ngi lay bu baax a baax di la Euh, ñu lay fay di nuyu mbokku Dakar Buzz yëpp Sénégal Buzz yëpp di nuyu mbokku internet yu ñu suivre yëpp di ñaan ñëpp jàmm di ñaan suñu bopp jàmm di ko ñaan àdduna yëpp ak dëkk meewum jullit ñu ngi lay ñaanal jàmm quoi. Mm-hmm. macha allah comme ni ma ko waxee rek tey damaa ñëw ci écurie bi euh, pour ñu waxtaan waaye damay dooree waxtaan bi ci li nga xamante ne moo di écurie bi ñu gis euh, entraînement ak tàggat bi nga xamante ne yéen a ngi koy tàggat ndaw lépp rek ci def ñoom li nga xamante ne moo di xam ak doole liggéey boobu ngeen ci liggéey ak ndaw yi ndax liggéey yomb la waaw xam nga de mbooloo rek yombul te nga dajale ay xale yoo xamante ni euh, euh, ku nekk bokkul fu mu yaroo ku nekk bokkul fu mu jiyee ku nekk di indi sa jikkoy bopp day xaw a jafe nga mën di gérer ñëpp ñëpp ñëpp daal waaye daal yàlla boole nañu ay grand yu charge mooy cours ci ngeen di fekk fii ñoo xamante nii bon ñu ngi def seen kéemtalaay kattan di fexe di dajale booy yi di leen conscientiser surtout nag quoi mais nag xam moom euh, jubag jubal moom ak lu sotti moom loxo loxo su yàlla suñu borom la maanaam daal ñun daal ñi ngi sabablu. yàlla yàlla mottali gis ba njëkk ci mbër dara ñëw entraînement takk téere sotteekoo ay musique mais dafa mel ni niveau boobu noonu da ngeen ko génnee carrément léegi ci làmb gëmloo ne xale yi euh, sport entraînement moo lay mën a yóbbale fi nga jëm. waaw surtout loolu ay temps da ngay gis ni loolu ci entourage yu mbër lay nekk mu ngeen nekk mbooloo ñu la moytul diw dafal diw boo dem entraînement sangu fii diwu fi takk say gàllaaj suul fii loolu yëpp bon. am na ñoo xamante ne ils sont mal intentionnés tout le temps rek ñu ngi xool ñu ngi def benn concurrence boo xamante ne nii c'est pas loyal. Mm-hmm. Euh, loo xamante ni amul benn foo ko mën a teg quoi moo jul diw xoolal diw def na nii nangam nangam dalay yàqal yëpp ñu ne yàlla dimbali ñu fii moom ñi ngi ànd ànd boo xamante ni vraiment euh, parcelle yëpp nag ku nekk yéene nga sa bopp te ñu ngi ànd daal suñ képp dalaay kàttan dañu ñaan daal yàlla gën ñoo jubale ñoom ñëpp te ku nekk defal sa bopp ne ku doon may sa bopp yaay ëppale yàlla mooy maye yàlla mooy tabbu njiit. yàlla mooy sotti lépp quoi. waaw lépp lu ñu defee ñu def ko ci ngoor quoi. waaw mais ngeen defee liggéey boobu ba jéem a dindi yenn yi ci boppu xale yi parce que ku xam mbër xam ni mu fiiree ci ay moytul ak bàyyi ndox sax da ngay naan jël sa bi denc loolu dem na ba dañ léegi ci boppu xale. waaw mais loolu esprit bu bon la esprit bu mauvais la sport ak ay gàllaaj yi leen gàllaaj nag affaire cosaan la mais sport ak gàllaaj dara boolewu leen. leen au contraire da lay gën yàqal rek. dañuy am combat jël ñu fay la trente millions nga def vingt millions ci gàllaaj vingt millions jëlal na la na daal ay gàllaaj yi nag dëgg ma yàqal kenn defal nee ak demal nee bul def li bu def lee dans le conseil dama nga entraîné yi loo manqué dama nga uti ko lees nag yàlla mooy may ndam wax dëgg yàlla nag man mënu ma mënu ma fayeeku cinquante millions yow nga may ñaanal ma lay jox benn deux cent mille cent mille di am bénéfice comme ça cinquante mille mu am bénéfice quarante comprendre nga. 40 49 millions 800 mille. ma koy am. yow yaa may ñaanal pour mu am victoire ma jox la si 200 mille wala 150 mille wala 500 mille n'importe quoi mais imagine loolu loolu yanu sax maanaam ku nekk war ngaa mën a ñaanlu dañ seeti ku nekk def loo doy mais bañ ko def ci ci offre yi lii sa mooy sa entreprise mooy sa lépp fexeel bénéfice bi nga xool fi nga koy dugal fexeel noo koy saqalalee waaw man de li may rëcc rek mooy la ma def ci gàllaay yëpp bu ma ko delloo woon ma am xaalis. waaw ah, waaye nga ci ay dizaine de millions. non danaa ci def moom presque man su ma xam man moom mbër laa boo xamante nii ndax su may tànk guddul woon trop. ñi ma doon jàppale bariwul ndax man du ma nit koo xamante nii su ma xewlee rek wax ko ñëpp ñëpp ku nekk war a jóg. ba tax ne la ma am dama ciy def sama kéemtilaay kàttan jëm see préparé li ma fay ma fayee un million presque dinaa jël sama huit cent mille wala sama neuf cent hmm. mooy sama carré yëpp quatre personnes laay lim maa ba ni ma bàyyi bëre hmm. comprendre ba tax na daal sa waay affaire daal sport la rek entraîner nga dem xam nga def fulla fay fayda ci xel mu dal yàlla may la ndam bu la ko mayee nga jël bu la ko xayee tamit nga santaar ko amul leneen hmm. amul leneen quoi muy lu am solo ci li nga xamante ne rek moo di door waxtaan bi waaye du ñàkk aussi ñu taxaw tuuti rek ci li nga xamante ne keroog euh, gis nañ euh, organisation bi du si nuyu le PDG Mansour Ba di ko bëggee bu baax a baax a baax ci initiative bi nga xamante ne def na ko waaye aussi gën a delloowaat rek euh, ndaw yi ndax ni ma koy waxee moom promoteur la boo xamante ne jeunesse bi ak ndaw ñi kese ñoo ko tax a jug combat royal bi mu indi Sénégal yëpp bigaat ci diggante Siteu ak Modou keroog ñu gis face à face waaw bon li ñu def dul remercier d' abord Sénégalais yëpp ak képp ku bëgg làmb ak fépp foo nekk d' tamit di remercier aussi tamit monde làmb di remercier nag Tamba production yëpp nga xam ne équipe équipe bu déggoo rek moo neexal liggéeyal te gars yi ku leen xool gis nañ joxe nañ keuse am pour mu sotti mhm. aussi tamit ñu si gërëm gërëm suñu partenaire bi ñu àndal muy Eri mu def ci kéemtalaay carte ay moyens pour affaire mën a réussir aussi moom Eric moom mention spéciale à toi. waaw. Euh, bés bi des na waaye keroog gis nañ face à face ñaari mbër yi Modou Lo ñëw Siteu ñëw naka nga gisee ñaari état de forme ñaari mbër yi papa. waaw état de forme rek teel na ndax combat bu jëm novembre moom. mbër bu sab état de forme actuellement mooy mooy sa combat yàqu na. mais Siteu dafa ñibbi si ñëpp ne Siteu dafa indi doole dafa indi état. waaw mais loolu moo war Siteu Siteu a entraîné du nit nekkul nit ku ndaw. Euh, nekkul ku tuuti war di entraîner war na mën a am noppali sax man laay wax war na mën a am noppali ndax bon ñoom surtout suñu raq la ñu ko yéene jàmm yéene ko salaam. buñ sañoon mu def carrière bu extraordinaire mais nag loolu ak préparation combat sori na trop préparation combat programme quatre ans la si quatre yi nga koy liggéey ba nu mu jeexee. waaw hmm. ah, euh, da ngay def résistance da def endurance. def force def résistance def vitesse. Mhm. instant bi nag ñoom instant bi nag war nañ toll ci force. si ñaari weer ñu jëm ni yëpp ñu ko ut force ñaari weer ak xaaj bi ut ko force lépp. léegi bu demee nag ci weer bu des bi nag résistance bi vitesse bi fa lay ñëwee. ak nopp lu bari bi waaw. Mhm. waaw jël Modou ñu bari ne làmb ji daal Modou daf ko jël pour combine wala pour may li nga xamante ni mooy euh, Siteu couronne bi waaye keroog bu ñu gisee nu ñu waxtaanee mel na ni nit ñi dañ doon waxtaanee seen xel lañ. ah mais man man léegi Sénégal dan maa dan maa yee ci lu bare bare bare bare bare Sénégal bu kenn waxee rek ñëpp dañ ci daw ndax réseaux sociaux bu kenn waxee rek ak ci lu mënti nekk moo xam ci sàmm laak napp laak bay leneen football ak bëreeg leneen bu kenn waxee rek ñëpp dañuy daw la nga amu ci loolu noonu. waaw man loolu moo tax man bu Sénégal di wax damay ree rek tey jii nit nit mën na def carrière mu def depuis 2005 ba léegi ngay reyante reyante tollu fii. tollu fii nga bëgg a def loo kenn deful. ndax ñi génn ñi génn làmb ñëpp muy Papa Sow keneen keneen ñëpp presque ñu génn si buntu bi bariwul mhm. ñëpp ci fenêtre lan jaar ah. yow kii bëgg ne moom carrière da ko bëgg mu rafet génne génne ci porte bi nga naan ko day combine te combine man sama xalaat laa de combine bu ko am ci làmb est que ñun fekk na ñuy bëre combine que ah, fekk mu mu fi mu dem ba jeexal am problème mu problème këram moom moo bokk combine boppam ah. mais promoteur bu combine hmm. wala ñaari mbëri combine gisuma ko fi de. fa arbitre xas ne prix foofu est-ce que combine am déglu naa Forza wax mu ne ñaar ñu bokk ndey ak baay dañuy ñëw ci géej songoo bëre foofu mënoo fa gis combine. non combine gars yi ñoo sama sénégalais yi mu la wax rek. Uh-huh. bu kenn waxee rek. ñëppay naaw ci loolu dëgg la dëgg la dëgg ñëpp wax ndokk na ku nekk wax sa xalaat xool da ngay dugg tey TikTok gis benn waa ji defal benn affaire benn jooy wala benn affaire uh-huh. mu commenté la pare nee wax leen mu xew. day commandé ba pare <laughs> soog soog laaj lu xew da koy gis si TikTok bi Instagram yëpp da nga gis <laughs> ndeysaan expliqué xam nga ba pare waaw dimbali leen mu leen mu lu xew après après doo xam moo tax man léegi sénégalais bon seen ay wax du ma ci tenir compte trop quoi euh. waaw du ma ci tenir compte trop si te ragalul Modou gis nañ ni keroog waaw ñame na adversaire am ah, mooy yoon mooy yoon góor du ragal góor si te warul ragal Modou hmm. waaw góor du ragal góor ñoom ñaar dañuy livré combat bu neex la ñuy bëree ñoom bu demee ne den leen gis combat royal bu gëj a am combat bu neex la ñuy bëree Siteu ak Modou di xeex di leen bëree ñoom ñaar ah oui dañuy xeex dañuy bëree mais moo dafa bëri ci carrière am lu bëri pour ñu jox Modou favori bëriwut c'est la première fois ñu jox Modou favori à cent pour cent waaw mais Modou boo ko xamulee moom doo ko jox favori man bi ma ko xamulee sax man daa ma ko doon jox benn favori mais ma ba xam ko gis ko xam ko dëggantaan xam naa ne góor mënu ko ci laamu ji waxum moo mën mu bari de waaye góor mënu ko ci làmb ji mais boo ko boo xamul nag da naan ku bëri ah, kii de sawaay kii de sawaay kii de sawaay mais góor mënu ko ci làmb ji mm-hmm. waaye ni mu wax Siteu làmb ji wax nga ci am looy wax muy gën a métti ci yow daf ko wax pour jaay làmb ji wala Modou ak ñi ngeen nekkee ak moom xam ngeen ne loolu muy wax lu dëgg la ci moom waaw ah, mais face face noonu la neexee dañ ne wala xas-xas loo xas-xas loo bi ne mooy tax na jour ji di dem ba dugg ci géew bi ne ah man maa waxoon lii ak lii ak kon dinaa jëfee nii ak nii ak nii. lii mooy combat bi day day nekk moo moom la dañuy dem ba ci kaw boo nee ba ci kaw nag. wàcc stop mais bu nee ba ci kaw moom leen léegi par force ngeen wàcc. léegi yaa xool na ngeen wàccee nag. bërëgu mën na am ak supp ak jàll nag am. Hmm? waaw. Ah, day day sëq rek sànni. waaw mais ñun ñaa déggoo dañuy ku nekk da ngay xool li nga xamante ni di nga mën a déstabiliser adversaire rek nga waxe ko ak nga jëfee ko ba fi combat bi ñëw. Hmm. waaw. xëy na kii ne boo amee pakati mbiskit doo yooyu benn kii ne ko man du ma sa ñeexu ñebe du ma ñeexum ñebe benn mbër xam nga ay waxante na fa ay wax yu neex man pour man signature contrat bu neex bu am niveau lañ signature ñaari mbëri wax dëgg yàlla mais da nga dégg ñeneen taxaw fee tamit wax comme léegi da am na booy bi nee na non Siteu waroon na wax lu ëpp lii wala Modou waroon waaw dafa sedd parce que doyal quoi ñoom xam nga ñoom bi leen gars yi jàmbaar euh, plateau bi leen tegal sax bu sax dina am lu ëpp loolu comprendre nga mais mburu gis nga amateur làmb moo dul doyal làmb te bu ñu sible combat diggante 15 heures ba minuit yi toog di saan amateur làmb doyal làmb waaw ah, du doyal làmb gars yi doyaluñ keroog hmm. mais am na yeneen ak yeneen yi a bi ñu gis ci Modou Euh, gis nañ Modou contre Ama Modou dafa strain jàkkaarloog adversaire am doon ko may dara booy ñaa moo daan jugee fële ñëw di fekk ci Modou boobu Modou bu ma mais Modou di ñu gis si la signature bi dafa firi di dox bay wan Siteu ginnaaw di dox ay doxam seetlu yooyu aussi ñun dañu koy bàyyi xel tax daanuñu woon gis ay adversaire Modou Modou di jëfante ak ñoom noonu lan la. non est-ce que euh, bi. jëm plateau mooy xam nga yéen plateau yi nga mën a ubbeeku def naa nga def naa mais comme ñu ñaar rek a nekkoon ci benn rek bi da ngay am temps wu def nii def nii quoi comprendre nga mm-hmm. loolu la quoi mais ñaari mbëri daal jàmbaar kontaan si ñoom ñëpp mm-hmm. muy Modou muy Siteu vraiment def nañ signature contrat bu neex wax dëgg yàlla. Mm. waaw wax dëgg yàlla. am na ñenn ci amateur yi dafa am seetlu bu ñu seetlu ci Siteu ak jàmbaar ñu ne jàmbaar dafa jég jig Siteu deux événements yu mu tëgg yëpp euh, ci ndam la ko génne. Mm. waaw mais tamit noonu la euh, confiance ak moo lal diggante diggante Siteu ak jàmbaar di ko wax nag mu gën a góorgóorlu rek ndax bon jàmbaar li ñu mën rek mooy ànd ak moom ñu liggéey moom na fexe ba lépp loo xamante nii war na ko jàmbaar bu si jàmbaar doo mhm. ndax bon comme que ñuy def partenariat ñu nag ñoom di liggéey mu rafet trop surtout côté Siteu moo tax may gën wax lu mu góorgóorlu doyul. Mhm. Euh, Siteu man yow yow laa koy adresse directement. Mhm. loo góorgóorlu doyul ndax combat royal ngay bëre combat boo xamante ne ñun. bëgg nañ ko yóbbu fu musul egg. mais Modou mi ngi joxe à 1000 pour cent Siteu dinoo bëgg a joxe nga joxe à 1000 pour cent. ndax it doo ci mën dëkk parcelle lañ dëkk. mais ñun wax dëgg yàlla sunu ngor sunu ngor may ñu yëkkati benn pepp suuf di ko dolli ci karaw Modou pour mu ëppale Siteu. wa dégg nga li mu la man lu ma nangul sama bopp du ma ko defal keneen. waaw xaw ma dégg nga wala déggu ma li ñu mën mooy Siteu ñoo ngi Modou dañoo am ay amitié. bu leen bay faral di far moo dañuy faral suñu nit la mais bu ñuy organiser dañuy def dañuy dañuy organiser quelque chose de très très professionnel. cadre sport lañ koy teg ñun cadre sport. Mm-hmm. nan def nii nan def nii nan def nii def nii ndax làmb ñun label la bu nekk ci biir làmb. Mm-hmm. ñu ànd seeg suñu ay mbokk promoteurs yu bare bari ku nekk yaa ngi innové yaa ngi def ñu ne bu ñu soobee bu ñu innové dañuy def loo xamante ne du am benn faille du am benn manquement. Mm-hmm. loolu dama koy côté jàmm gan surtout laa ko gën gën a lépp loo xam ne bu ko defee mu rafet. dañ ci góorgóorlu baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw surtout ci non violence bi. waaw non waaw waaw loolu keroog wallaay Azim keroog man euh, science contrat bi li ma gën a neex science bi mooy gis ngeen fa ay xale yu ndaw gis ngeen fa ay jigéen gis ngeen fa ñëpp. bi ñu paree kenn ku ne da génn bunt suba place souvenir arrêté sa taxi ñu taal seen oto ñu taal seen moto ñëpp dem si jàmm. Mm-hmm. ñëpp kontaan ndax it boo bëggee dëgg dëgg ba vendredi bi ba jeudi bi euh, kilifa yi nanguwoon affaire bi am. kilifa yi nangu nu woon face to face bi am mais feen ko teg waaye bon dañ ne Modou il responsable comme kilifa yi Sénégalais ñoo tax ne Modou il est responsable kon na mbër yëpp jéem dabu Modou ci côté boobu noonu ndax boo bëggee dégg de commissaire point bi Mermoz dana woon si catégorie du am moo tax ñu jëlee ko ñu jëlee ko vendredi yóbbu ko dimanche ba tey mu ne noodu am mais mu ne ba ci biir mu taxaw ne bon dina dina dina def kenn tey carte mu am ndax xam ne ni Modou mën na gérer Modou kilifa la gis na il est responsable kon nag loolu war na bépp mbër ndax foofu gis nañu ne Palais Souvenir gëjoon am face to face depuis ci euh, euh, euh, Ama Balde ak Guy gi 2015 ñu xeex fa ñu xeex fa benn bi fa amaatoon mooy Yékini ak Balla Gaye ñamaatoon fa ay xeex gars yi ne fii du am kon bu newee tey ba kilifa nangoo joxe rek foofu place te place boobu promoteur bu ne war nga fa mën a dem. Mhm. def fa benn affaire ndax foofu place boobu c'est symbolique quoi. comprendre nga ba tax daal mbër yi seen en personne la ñuy wax ak ñi ànd ak mbër yi nañ jàppale mbër yi. jëlee mbër fi nekk bu doon da leen fekk euh, premier étage ñu yóbbu leen gratte-ciel loolu nag àndandoo mbër yi ñoo ko mën. mais bul def nii defal ne toogal nii bul dugg fii génnal fii taxawal nii tëddal nii dugal fii génn amul sens. bëre bi li am sens mooy heure entraînement fexe leen mbër mi dem entraînement heure ñibbisi dañoo heure lekk mu lekk heure noppal mu noppal loolu am sens. Mhm. leneen loo wax athlète bi dul loolu mooy yaa ngi koy wax leneen dul loolu. waaw athlète moom day heure entraînement na entraîne heure am lekk mu lekk heure nelaw na nelaw. Mhm. leneen loo fi def nag sànni sa xaalis ak sànni sa wax. waaw ku ko deful yaa ngi ci leneen yaa ngi nax sa bopp waaw yaa ngi nax sa bopp eh, eh, ci euh, clôturer ci point boobu noonu rek ñu gis Siteu ni nga xamante ne noonu la waxee ci cadre roi des arènes bi gëm-gëm bi mu am ni moom daf koy jël ci loxo Modou Lo dem te ñu bëri dañu naan Siteu nan ni mu doxee baax na bu mu dépassé Modou pour bañ a dugal Modou ci combat bi naka ngay déggee wax boobu parce que ay adversaire am yi fi jaar wax moo tax Modou dugg si combat bi nan ngay déggee. waaye xam nga ni moom bon presque man léegi euh, ak moodu bi mooy cinquième combat ñu ànd di ko préparé ndoo ensemble. wax dëgg yàlla Modou lii dugal ko ci combat Modou moom bu jëlee bu jëlee combat bu jëlu combat mi ngi ci combat mi ngi ci liggéeyam. c'est nag nit ñi xam nga moom laa sànq Sénégalais dañuy jël benn wax di ko ci dugal Modou foowul entraînement foowul récupération doo ko sax foowee. léeg-léeg nga woo ko toute une zone doo ko jot. te boo dem entraînement boo boo koy woo mu xool entraînement jot na dëpp na téléphone bi dem na entraîné ji Modou xam na fi mu teg tànkam bu baax a baax a baax. te it la foofu la invité mbër yëpp sportif bi mu teg seen tànk. wax yeeg yooyu ko dugal ci combat. ñu bëri ñoo jàpp ne adversaire boo ko wax wax bu ko métti wala wax bu ko dépassé dugalagoo ko ci lamb rek Modou ma nekk moom yëpp athlète bu serein la athlète bu sérieux la du fooyee entraînement am liggéeyam bii làmb moom hmm. fooyoo wax dëgg yàlla fooyoo quoi. waaw ah, fooyoo point boobu noonu xam naa damay ñëw ak yow ci événement le 21 juin bi laataa loolu aussi lan ngay wax jàmbar parce que yaakaar naa ne mi ngi préparé Sénégalais surprise yu bëri ci événement boobu euh, muy combat royal bi mën nañ ci xar ay surprise yu bëri yu jóge si jàmbaar. ah oui bien sûr boo gisee keroog ñu ñëw fi xam nga combat bi taxaw na ay weer waaye ñi seen combat bi ñu tëgg mi ngi nelaw combat bi dañ ko jaay combat bi nangam mënuñu ko defuñu nangam mais communication dafa am temp ay tempo laaj. xam ay jamono boo benn jamono day ñëw ba jamono boobu boo boo defee rek day dal xam nga ñu ngi ci 4 mois di combat. xam nga de la combat wala di combat ah xam xam moo si des. léegi 4 mois bi léegi da nga mën def say échelon tak tak mais bëgg a jël mbër yi téye leen 7 mois loon xam nga 8 mois nga bëgg a téye di leen va et va et vient day mujj soof nit ñi. Mm-hmm. jàmbaar na euh, ubbi na ubbi na calendrier am la set. waaw dinañ xool chaque jamono rek dina leen tak benn affaire day ñëw. waaw ah, waay. ba keroog ñuy ñëw ci noor. waaw waay waay ba keroog ñëw ci noor chaque ay innovation yu baax innovation yu mag. te du bari du rambax. waaw du bari du rambax. waaw ay ñoo seq làmb yàgg dund làmb yor jàmbaar xam niñ koy tegee. waaw mais loolu rek xam nga événement moom événement bu bëggee def lu ëpp rek après day mujjee soof day mujjee yàqu. Hmm. da nga koy teg ci axe rek.